suba lan war a tàmbali taxawal ay kuréel yoo xam ni si si si communes yi lay nekk maire yi ñoo koy ñoo koy présider pour ñu euh, recenser euh, famille yi nga xam ni euh, wala njël yi nga xam ni donc dëkk bi ni mu demee tax na ñu am jafe-jafe bëgg nañu maire yi si quartier bu nekk ñu dem fa daje ak délégué de quartier bi Euh, responsable des jeunes responsable des femmes l'imam képp koo xam ne am na baat si si si commune bi si quartier boobu ñu dajale leen ñoom ñëpp su ko defee ku nu yaakaar ni rek war ngaa jot si ndimbal loolu ñu ñu bind sa tur su ko defee saa yu ñu demee ba war a séddale ndimbal li muy li état joxe ak leen fi ñu bañ a ñu bañ a fàtte kenn.